wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki STTV Sagratu Touba ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp di ñaan suñu borom mu boole ñu jégal mbokk yi tey dañu dikk génn ci xay xayyun qayyumun boroom tur yàlla yëpp xam nañ ne ñaari tur yooyu ne nañ kuy wër kuy wër ismul azam te nga bàyyi ko fi doo ko jot rawatina bu allahu jiitee seen kaw muy allah xayum xayum waaye nag ñoom ñaar ñii rek dafa am ay jagle ñu am mbokk yi secret bi képp koo xam ne ne alal mooy sa yitte boo ko saxoo incha allahu taala danga sant yàlla yaa xayu yaa qayumu égal cent soixante-quatorze boo génnee yaa unidaay maanaam daal xayyun qayyumun égal cent soixante-quatorze xayyun qayyumun six lettres la ñaari lettre xayu ak ñeenti lettre qayyumu kon boo jëlee cent soixante-quatorze nga multiplier ko par six moo lay jox mille quarante-quatre kooku nag moom la ñuy tënkee damashun waaw borom xam-xam yi xam nañ li may wax tur yi nag moo ko jàpp ahma xalhaniyu ahma xalhaniyu moo ko jàpp tolloog aaya alquran bi wa min qawmi muusa ummatun yahduuna bil xaqi wa bihi yaadilun ca suratul araf aaya 159 mbokk yi soo bëggee liggéey tur wi dafal istigfaar 174 nga jàng salaatu ala cent 174 yaa xam booy jëfandikoo nag nga jàng yaa xayu yaa qayyuum 1044 nga indi tur wi ahma alxaniyu ahma xalhaniyu cent soixante-quatorze alif la xaa miim xayi ndigal wala xaa gu tomb laam ak haa ak nuun ak yaa ahma xalhaniyu nga indi aaya bi wa min qawmi Muusa ummatun yahduna bil xaqi wa bihi yaadiluna nga indi ko six fois juróom-benn yoon nga indi aaya bi nga jàng rawaxan bi ajib yaa dabaxa yaa iilu ajib yaa dabaxa cent fois saraxam nag benn kilo gerte la benn kilo gerte ngay jël sarax ko ay xale su la neexee da mu nekk gerte gu ñu saaf waaw ak benn litre meew boo xam ne tam da koy tàngal wala nga seddal ko yaa xam neexee nga tàngal ko neexee nga seddal ko def ko ay kaas jox ko ay xale ñaari sarax yëpp jox ko ay xale moo ci gën incha allahu taala mbokk yi kon tur waa ngi noonu ku ci bëgg a jëriñu rek yàlla na yàlla defal la ci barke chers frères et sœurs nous sommes revenus avec un grand secret de Hayyun Qayyum Hayyu Qayyum son poids mystique c'est 174 ses lettres sont un nombre de 6 si vous prenez 174 le poids mystique de Hayyun Qayyum multiplié par ces 6 lettres euh, ça vous donne 1044 1044 c'est on l'a abrégé avec Damashun. Le nom de ce ismu, c'est Ahma Ghalhaniyu. C'est son talsam. Le verset qui correspond avec ce nom se trouve dans Surat Al-Araf, verset 159. wa min qawmi Moussa ummatun yahduna bil haqqi wa hiya Donc, si vous voulez travailler ça, si vous voulez beaucoup avoir beaucoup d'argent euh, tu fais astaghfirullah 174 salatu nabi 174 ya hayyu ya qayyum 1044 ahma ghalhaniyu 174 wa min qawmi Moussa ummatun yahduna bil haqqi bihi ya'diluna six fois et vous amenez la rawhan ajib ya dabaga ajib ya dabaga ya iru cent fois son sacrifice c'est un kilo d'arachide si vous voulez vous pouvez donner de l'arachide grillé euh, aux enfants et un litre de lait aussi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.